Kézaaw. <laughs> Eh, sama waa ji daa mel tey yaay jaay de. ah gis nga mais damaa sonn nan laay def ba am ci yii xoolal cat ah, gi rek la sa caaxaan yi raf raf ak sëñ Baara Fall univers bio. ba ah. léegi amugoo sikib. mais teg ma ci code mais wooteel 77 169 45 45. jaaxle jeex na booy jaaxle jeex na xoolal. day ñëw avec efficacité. bu baax. produit lii la xoolal xoolal. shampoing la. waaw huile ak pommade. nga ne su la neexee. waaw shampoing bi ngay jël. di ko mhm. diw sa sikkim bi. waaw muy liis. <laughs> xoolal affaire yi di ubbeeku. di biri karaw yi di génn. naan cax. nga lii ni mu guddee. jeex na après nga diw si huile bi. nga ne ma mu jeex. kon gars yi eh, dama ne daw leen ñëw kër Serigne Lamine Bara Fall dama ne boo bëggut am mbaar ba ci yow rek la des. dafa leer. <laughs>